dafa Ibra Faal mu digal ko mu sanc këru tarbiya ci soowu dëkk bi moom itam muy Tuubaa Faal noonu la xur yooyu tàmbalee dunde nit ñi tàmbali nag di laxas di fi ñëw ñenn ñi dañoo ñëw ngir siyaare si ña ñëw ngir euh, bokk ci mbooloo mi tarbiyewu ñi daan tarbiya wu booba matoon na fanweeri nit noonu lañ wéyee ba ci atum jay sasin te mooy euh, atum jay sasin mooy cent tolloog 1895 liñ gënoon di liggéeyee jamono boobu it ci diir boobu yit mooy euh, tarbiya rek tarbiya tarbiya nag ci ñaar ci jàngle ak liggéey jàngale ak liggéey jaamu yàlla jàngale liggéey jaamu yàlla sëriñ bi tànn sëriñ daam abdourahman mu jiite njàngaleem alquran mi maam no borom daaru mu tànn ko mu féetewoo njàngaleem xam-xam mi moom ci jëmmi boppam nag mu féetewoo moom euh, tarbiya gi ak tarqiya euh, tarqiyatu ruux tarbiyatu ruux ak doon euh, al mursirif al am mooy yilif leen ñoom ñëpp nag di xoolaat njàngale ma ak liggéey ba lu ci ne boobu nag li ëpp ci lu ñu daan liggéeye mooy bay waaye at yooyu ñeenti at yooyu yii muy at yim jot a def Mbàkke Bawol ak Daru Salaam ak noonu mu ñëwee tubaab mu siiw fi siiw gu siiw lool ba ñépp di yéemu ci moom te boobu mi ngi toll ci fanweeri at ci diir boobu ci la sëñ bi doon wër réew yi wolof yépp wër na ko daanaka fii ci senegal gépp wër na ko dem na Saloum euh, ba dem ba Waalo kajoor ak bawol fépp wër na ko kilifa yi nga xam ni ñooy nit nit ñu baax ñi fi daan dund ak ñi faatu ñëpp mu siyaare ji leen naka noonu diir boobu ci la euh, siyaare ji na Mauritanie dem na seeti Mauritanie dajeeg lenn ci boroom xam-xam ya ak wàlliyu ya ba jële ci ñoom ay ijaasa wirdi yim jëloo wirdi yim yoroon nit mu jëlewaat ko ci euh, ña ko ci kilifa kilifa ya ko yor foofa foofu la jëlewaat wirdul xaadir ci euh, si baaba ci sëriñ Cheikh Sidé baaba baaba baabawul Cheikh Sidé ci jëmmi boppam gannaaw bu mu ko jëlee ci baayam jëfandikoo ko ay at la ko jëlewaat ci moom direct mu mel ni kon jëlug ijaasa la jël kooku mu ko jëlaat ci di Sidé jëlug lijaasa la dem na it seeti barabu euh, Cheikh Sidil Muxtaar foofa ca Tandoox naka noonu mu ngi fekk baaba ca dëkk bi ñuy wax Maymoun tàgg na leen ci jamono boobu la woy as silsilatul qaadiriya mu ngi tàmbulee ci qaala alfaqiru ahmadul mbakiyu anhu afa wa rahima al aliyu الحمد لله الذي لنا جعل سلسلة ننجو بها عند الوجل ثم السلامان على محمد والآل وصحبه وكل مقتدي ما دام أهل الكشف والعرفان توصل سالكين للرحمن هذا ولما جمت الهموم في كلكلي واعتادني الغموم وقام إبليس العظيم المكر يوسوس الفؤاد كل دهر ولم يزل يريد أن يسي أن يرديني بكيده الماهر كل زمن حتى يكاد يسلب الإيمان في القلب كي يحدث للحرمان فوضت أمري إلى الله البصير بكل عبد من جليل وحقير مشتكيا إليه بالتوسل بسادة الغر ذوي التسلسل عساه أن يجمعني في حزبهم يوم الجزاء منخرطا في سلكهم رتبتهم على تناسق كما تعاقبوا تسلسلا منتظما مبتدئا بشيخنا سميه روث الزمان جده الولي فقلت طالبا من الرحمن نيل, نيل الهداية مع الرضوان بسيد الجم المزايا بابا من كل خير ربي لفتح بابا noonu la tàmbulee xasida googu tudd as-silsilatul xaadiriya noonu la ko woyee euh, tudd ci ñi euh, werdu xaadir jaar ci seen loxo mu tàmbulee ko ci euh, baaba te mooy baabulu Cheikh Sidiya noonu la leen woyee kenn par kenn ba àgg ci yonente bi sallallahu alayhi wa def ci ay ñaan yu am solo loolu mu woy loolu moo tax lenn ci sëriñi moo sëriñi naar yi laaj nañu ko ni ko kan mooy sa sëriñ mu ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kooku ni ko waaw lu tax kon ngay tudd àllu Cheikh Sidiya di leen euh, tuddee ay sëriñ nag di leen tagg it boole ci sëriñ bi ni leen booba dama mel ni gumba guy sàkku ku ko gindi dana ko sàkku ci ko xam wi dana ko sàkku ci ku ko xamul waaye ba ma demee ba boroom yoon wi feeñu ma te mooy njiitul diine islaam xëcc ma jëme ma ci boppam muy sonne gu sunu boroom def sama diggante ak moom foofe nag lépp lu doxoon sama digganteeg moom day daal di wadd mu des fi moom képp ànd ak nag ni sëriñ sosi dinaa leen di jokk ci yàlla ak bëgganteeg ñoom ci yàlla ak jariñanteeg ñoom ci yàlla waaye li wér mooy yonente bi sallallahu alayhi wa kenn doxul sama diggante ak moom wër googu mu doon wër sëriñ si moom la leeral ci lenn ci ay xasidaam ba tey di leeral tolluwaay yam toll ak jaar-jaar yam daan jaar mu ngi koy leeral di wax ni tàmbale ko ci tagg sant yàlla alhamdulillahi alladi sallamana min arrada wa rushdahu allamana li maa ngi sant yàlla mi nga xam ni munu musal ci ay alkande te munu xamal ak njubam sallamana bil mustapha al muxtaari salla wa alayhi al baari wa alihi wa sahbi al min abraari yàlla mi musal e, ci daraja yonente bi sallallahu alayhi wa sallam e, mooy ki leeral ngir yi sayidina xad awdahal manahija liman yuridu an yakuna walija wa baadahu ni moo dimbule nit ñi ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi awrasahu sahaaba fi dalika al islaahi bil ijaaba ginnaaw bi sahaaba yi wuutu ko ci defar googee wa naaba anhum fi itibaaci lbaari mashaayixu tasawufi l axyaari sahaaba yi ña leen wuutu ci topp sunu borom mooy sëriñi tasawuf yi walam yasaalu yataaqabuuna li yuslihoo wa yatawaarasuuna mosuñu dañ di wuutoonte ngir defar di donnante ngir defar taaqabu fi sha'ni diinillahi qarnan fa qarnan taariki nawaahi mu ni ñoom wóotoonte nañ ci mbirum dina yàlla ji xarnu ci ginnaawub xarnu bàyyi mbooleem lu sunu borom di tere mujaddidiina bimtisaalin wajtinaab li wajhi baaqin minhu jaa anal kitaab di yeesal ci ndig ci topp ndigal yàlla yi ak bàyyi ay teram ngir jëmm yàlla walam azal munzu aqaltu taaliba maarifatan billahi jalla taiba man mii nag musuma dañ dëppi ma xelloo di sàkku ak xam yàlla fa jultu bayna al ulama wal awliya moo tax ma daan wëreelu ci diggante borom xam-xam yi ak wali bi niyati wa amali wa xawliya ànd ak sama yéene ak sama jëf ak samay wax kay laa yadiha umri itaaba bi xusni dannin xaadal ixtisaaba ngir bañ rek sama dund di e, e, sànku ci ab coono ma ànd ak ku rafet njort nag moo ma womatoon xatan saraftu ama jay sasin ila xidmati xayril alamina ila ba ni ma wëlbatikoo nag ci atum jay sasin jëm ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam musalliyan mahamti daahin kulla aam wan xaada kulli ila rabbi anam bi mu sooboo ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nag li boole mooy julli ci yonente bi ak di ko tagg euh, sama lépp nag wommatu jëm ci yàlla fa xaadani min al baraya ajmain ilayhi bil maahi wa zah sahal ain yàlla nag wommate ma ci mbindeef yépp xëcc ma jële ma ci mbindeef yépp Euh, euh, jëme ma ci moom ci daraja yi bi sallallahu alayhi wa sallam fa kaana ma waqaa ama jay sasi loolu moo waral la xewoon ca atum jay sasin xew minal xuroo ji ci génn gu ma génn mooy jaayante gu ma jaayante yonente bi nga fas ko yéene liggéeyal ci la yàlla jaarale sababu ma génn dem ci loxo yi tubaab yi ñu teg ma natt yooyu ñu ma teg bi xidmati lil mustafa wal mujtaba salla alayhi man hadahu wajtaba kon loolu rek ba tey dana leeral ni euh, yoonu géej gi ñëw ci kanam euh, la ko sabab lépp mooy soobu gum soobu jaayante ak yonante bi ngir liggéeyal ko ci tagg julli ci moom ak cër yam war a amee ci lool yi nag euh, moom la sunu boroom jaar la ci mottule ko ci nattu yooyu ñu ko doon teg kon sabab bu leer la am ci mbirum biir muy génn gim génnoon dem ci géej gi ak jaar gim jaar ci loxoy tubaab yi sëñ bi werdu saasali ak werdu tijaan yi yëpp jël na ko foofii ci e, tukki yooyu ci la jële werdu seeni sëriñ yooyu jëfandikoo ko juróom-ñetti at jël na werdu saasali jëfandikoo ko jël na werdu ak tijaaniya jëfandikoo ko lu mat loolu lu toll noonu diir boobu dajal na ci lu bari ci ay e, taalifi sëriñi tasawuf yi sëriñi tarixa yi ak borom xam-xam yi lu mel ni taalifi e, Cheikh Sidi Moxtaar Kunti yi ak eh, doomam ci tarixa xaadiriya eh, yépp da ko dajale naka noonu taalifu eh, tawaalifi tarixa chadaliya ak seeni ahzaab lu mel ni téere ibnu abbad ak zarruq ak ibnu ataillah ak nag yëpp daf ko dajal naka noonu dajale téere tijaan yi ci lu mel ni jawahirul maani ak remah ak al jaysh ak al bughya lépp daf ko dajale naka noonu seeni wird ak ci tasawuf ak yeneen téere yu am solo lu mel ni téere bi imam Yadaali xaatimatu tasaw bu Yadaali ibnu Mattaal ña ñaleen jiitu woon it seeni téere mu dajale ko lu mel ni xóotul xulóob al maddaxal ak ihya ulumi diin ak yiñ jële ci Junaydi ak siriyu saqti ak maaruf al karxi ak abu yasir al bustaami ak ñi nekk ci ar gaa ñi nekk ci ar risaatu xuseyriya ak la awliya ñun ñëpp ñu ci bari dafa dajale seen mbir dajale seen téere jër ko aju ca dund ko yëpp daf ko xool ak itte ju kawe ak jublu gu dëggu dajale ca la nga xam ne moo ko réeroon lépp mu fekk ko ci biir yooyu mu gën a dogg nag jëm ci suñu borom gën a sori mbindeef yi loolu yóbbu ko nag mu gën a sóobu ay xalawaat dugg ci àll yi bëccëg bépp mu di ko woor di fanaane taxaw di naafil la du nopp lu ci sikkar jàng alxuraan guddi ak bëccëg benn itte képp di itam jubloom gépp di genn muy ngërëmul yàlla ak ngërëmul yonente bi sallallahu alayhi wasallam gëlëm ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi loolu lu mu daan julli ci moom ak di ko tagg xëccu gu tar googu yi nag ci la ko suñ boroom tànnale boppam tànnal ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam kon tànnug yàlla googi ca asal moo waral mu mel na meloon bam mu juddoo rek la ko mel dañ ko bind mu doon rabbaani yi mooy nitu yàlla xamul leneen lu dul mbirum suñ boroom garabu tawxiid sax ci xolom waaye nag euh, aada lii aada li baaxoo am mooy ba noppi eh, suñu borom teg ko ca xikmaam suñu boroom lu ëpp ci lu muy dogal daf koy jaarale ci ay sabab mbir yépp mbir dogalam yépp daf ko jaarale ci ay sabab moo tax ba ci dox jëm ci yàlla sax mënta ñàkk nga sóobu ca yoon wa nga xam ne moom lañ baax woon moom lañ xamoon naka jëkk ak roy ña jiitu woon comme ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallama doon royee jibril naka noonu suñu borom digal ko it eh, summa aw xaynaa ilayka an ittabi millata ibrahima xanifan comme topploo ko sunu maam ibrahim kon loolu mooy eh, mbirum yàlla ci kaw suuf nga xam ne lu mu ko tànn-tànn ak lum man manoon a jële ci moom direct rek li lim lim tënk ay mbiram moom suñu boroom mooy la muy dogal daf koy takk ci ay sabab moo tax mënta ñàkk jaar ci yoon wi ñëpp daan jaar comme ni yonte bi daan royee ci Jibril moom itam mu sóobu euh, ci yoon woowu di roy jeexeeti nit ñu baax ñu ko jiitoon ak donte loolu tekkiwut nit ñi dañu ko gën ngir yonente bi jëlee gi mu daan jëlee ci topp gi ñu ko topp loo Ibrahima mbaa jëlee gi mu daan jëlee ci Jibril taxut ñu gën ko boroom xam-xami tasawuf yi dañoo saxal ni ki nga xam ne mun jasib la nga xam dafa xëccu suñ boroom xëccal ko boppam ci soppal ko boppam xëcc ko it ba mu àgg ci yàlla it mënta ñàkk mu wàccaat ba ci suuf mu tàmbalewaat fii ñëpp daan tàmbalee tàmbalee ci njëlbeen ga rek doxaat ji doo ko yéegaat moo tax sëriñ bi tàmbule ci jàpp ci sëriñ si ko jiitu woon ak sàkku leen xam ak topp seeni jeexi topp seeni ndigal loolu sonneek suñu borom la gum ko sonne gum sonne ay mbiram jaarale ko ci yoon wi nga xam ni ci la daan jaarale mbooleem nit ñu baax ni sëriñ bi doonte dafa judduwaale tawxiid am ci martaba bu kawe it taxul mu mas a benn boroom xam-xam maarifa lam xam mu sa kenn ab xaalam yemut it ci jële ca kaw rek ni naa jële ci Cheikh Ibrahima Abdou Khadir Jilaani maa Cheikh Ahmad Tijaani waaye ñi ci suuf ñi muy jëkk a jot rek te jàpp ne ko fete kaw ci ñoom la jaar yéeg jëm ko ba àgg ci ne yéeg nag jàll ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy li suñu borom baaxee dox ak ay nitam baaxoo doxee ak ak i nitam mësta woyafal topp kenn mësta woyafal topp seeni jeexit mu sa bàyyi dara ci li war ci topp leen te defu ko li war ci teraanga digganteem ak ñoom it musu sàggane dara luy néew ak bëri moo tax suñu borom loolu moo ko jagleel ngir mu man leen a donn seeni maqaama mu mën koo téye waaye nag ba mu demee ba donn leen téye ko it nag taxawul taxawul fa ñoom yàlla moo ko yéegal moo ko yéege mu jàll ngir daf ko waajaloon ngir mu war a donn yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax suñu boroom bi mu ko yéegee nag euh, fiir gi mu ko fiire digganteem ak lépp fiir gi mu fiir digganteem ak lépp bëgg mu féete ak yonente bi sallallahu te du ci boole dara moo tax mu rekki lépp jaarle ko ci ay natt yoo xam ni dana dem ba cër boobee mu ko waajaloon mu mën caa jot moo tax sëriñ bi leeral na euh, ka ko laajoon wax naa ko léegi ki ko laajoon ne ko kuy si sëriñ ma ñu ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam naka noonu ci tontu la mu tontu woon amiru ndar mu ko laajee ba laajaale ko moom fan la jële wérti yi daf ko xamal ne ko dama ko jële woon ci ñu ma jàppoon ne ay mu xàqi xoona lañ mooy ñu wér lañ ginnaaw bi ma dem ba am lu ma leer ci ne na ma ko yaakaare woon demewu ni sama borom yóbbu ma ci géej gi jox ma ñetti wérdi yépp Euh, jaarale ko ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir bari gu ma bari lu ma koy liggéeyal jële ci yonente bi it mbir la moo xam ni euh, moom bu dee ci biir cadre tasawuf moom dafee mutawaatir la fi ñépp daanaka ñi soobu ngirum tasawuf jaamu yàlla gu set wecc sellal seen xol seen diggante ak seen borom dara raxu ca amuñ kañaan amuñ njëstal amuñu rëy mbooleem ñi jaar foofu ña ci dem ba qualifié ñu ca baree baree bare dañoo dem ba mën a jële ci yonante bi direct mu sax ña werante ñeneen lañ ñoo xamante ne jaruñ ci ngir moom ñoo ñu jar ñu baree bari ci borom xam-xam yi euh, tasawuf yi doon nit yàlla yu mag yee mag a mag a mag jële nañ ci ñoom ñu ne gis nañ yonante bi yaqasatan dañ koo gis jëhëran ci lu du ay nelaw Sha'raani ci téeréem ba ñuy wax la waaqixul anwaar lim na ca mbooloo moo xam ne gis nañ yonante bi sallallahu alayhi wa sallam jahran yaqadaran la mën a naka noonu Suyuti yu ci téeréem bi ñuy wax tanwirul xalak fii imkaani ru'yati nabi wal malak eh, ba tey eh, ma nga cay eh, tontu ñi nga xam ni dañuy wuute ci loole dañ koy weddi ni mënta nekk indi ci ay tegtal yu bari tegtaloo xadis bi jóge ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax ni man raani fil manaami fa sa yaraani fil yaqaza wala yatamasalu seytaanu bi indi na ci ay leer yu bari moom alxaafid assuyuti te hadis bi mu ngi ci eh, saxi buxaari yu muslim tudd na it woote ga boroom xam-xam yi wóote ci xadis ba ak yoon ya yañ jaar ba taxrij xadis bi ci yeneen eh, téere ya dul ñaari téere yooyu yeneen téere ya ko nettali talwaa sax xëy ni tax nañ ko taxrij ba lépp la génne ba ci ña wax ni sax gis gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne dana ma gis ci eh, dana ma gis ña ko bëgg a féetale ni gis gi gisuk ëllëg la yowmal am la sax ba tey su yoote yu weddi na leen ni loolu tax siis amu ci ndax xeetam yépp danañ ko gis yowmal xiyaam ñi ko gisoon fii ci ay nelaw ak ña ko gis ci kon ñi dekk laa rabaat gis nañ ko te xamuñ ci ñoom lu dul ak ragal yàlla xamuñ ci ñoom ludul ak njub xamuñ ci ñoom ludul tegu ci aw yoon ñaari mbir lekk rekk war a mën am gëm leen mbaa nga maandu ci waaye ama xuus ci dër jullit rawatina wàlli di ca wax lu la neex loolu posen la boo xam ni ku koy def la la cay fekk mat nay bàyyi xel mat di moytu fu mu toll jamono bu ne waaw te loolu ma waxee léegi jël nañ ci mbooloo mu bare bare ji bare ci ahlul xaasa ñu wax ne gis nañ yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu mel ne Cheikh Abdul Xaadir Jilaani Abul Hasan Ash-Shaadili Abul Abbas Al-Mursi ak Cheikh Abu bare bare bare comme ko limee ci Lawaaqi'ul Anwaar al-Qudsiyya noonu kon ci sonneeg suñu borom googu ci la bi ajoo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wéyal ab liggéeyam li jëkk ci liggéey bi mu daan liggéeyal yonente bi it mooy taxawal sunna si yonente bi ci njëlbeen ba ca muj ga njëlbeen geeg mujj lépp taxawal ci sunu yonent bi ginnaaw ba faratee jàllee ca xeeti jaamu yàlla yépp na nga taxawal ci sunu yonent bi ak di tudd yonante bi di tudd ay martabam ay manaqibam ci di ko tagg ak di julli ci moom sallallahu alayhi wa sëñ mës a génn cadre tawhid tawhid bu set wecc ak liggéey yonante bi sax sax mosu ko génn comme ni mu waxee dallani allahu ala muhammadi wa qaadani muhammadun li samadi ñaar yooyu diggante yàlla yonente bi yàlla yonente bi yàlla yonente diiniya tawxiidu ilaahi naasi bi sunnatil maahi munal unnaasi wax nañ sama diine mooy tawxiid ak liggéey yonente bi sansun am na fu mu wax ne kasbiya tawxiidun wa mathun linnabi alayhi taslima gafuur lil muslimin sama pàgguteef lépp mooy tawxiid ak wéetal yonente bi ak wéetal yàlla ak tagg yonente bi dundam bépp mu seddle ko ñaari xaaj at mi mu seddle ko ñaari xaaj benn xaaj bi julli ci yonente bi des tagg yonente bi salaatu matihi sitta taatihi batta ma tisa yi al mooy jaamu yàlla ci sunna si bi sama sa mooy roy noonu la dunde moom yonent moom euh, sëriñ bi naka noonu murit yim daan yarit ci loolu yi la leen daan yar yàlla def barke ci yaram boobu yi mbooloo mu bare bare bare jariñu ci moom ba ña daan génn ña jëkk a génn mu jëkk leen yeew yi dañoo dem ñoom itam doon ay rootukaay yu ñuy roote ñuy tarbiya di defare ñoom itam ci kenn ku ne nag ca kem na nga tànq ci géeju sëriñ bi rek kii ma ngay jàngale alquran am ci cër bu rëy kee ma ngay jàngale xam-xam am ci cër bu rëy kenn ma ngay tarbiyee nit ñi ci ay jikko am ci cër bu rëy kenn ku ci ne na nga tànq ci moom te yooyu yëpp ni moom la sëriñ bi boole woon di leen ci yar lañ seetlu woon mooy kenn mosu fa bàyyi ko dellu ca fam jóge woon te du gis nañ ci ay doxinam ak i melokaanam ak toroxloom ak ak farloom ak sax gu muy sax ci lu koy amal njariñ loo xam ne duñu amati sikki sàkka ci ni kii lii mu nekk moo gën lañ nekk ku fa mas a bàyyi ko rek foo dem yaa leen di gën a rafet aw doxin gën leen a toraxlu nit ñi lañ daan xëccoo mooy ay daraja kenn ku ne jàpp ne yaa gën sa moroom sëriñ bi la muy jëkk a def ci nit ki mooy bu demee ci nit ña day defar boppam ba dañuy wëlbatiku di defaru ci moom boppam lay defar waaye du jóg ngir defar nit daana wax ni nit ki day yar boppam ngir mën a ànd ak nit ñi waaye du jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd moom loolu mooy yoonu sëriñ bi da ngay yar sa bopp ba mën a ànd ak nit ñi waaye da ngay jéem a yar nit ñi ngir ñu mën a ànd ak yow melokaan yooyu nag bu ñu ko gisee ci nit nit ñu baax ñëpp jamono bu ne dañuy xëccu jëm ci lu baax loolu moo waral mbooloo mi di toftaloo di walwali def genn saawo rek jëm si ci moom ñi ay borom xam-xam lañ ñi ay sëriñ lañu ñi ay jàngalekat lañ wet gune mbooloo dafa bàyyi ko ci ñi nga xam nag ñoo jiite woon àdduna ak ñi jiite woon diine doon ay boroomi cër kilifa yooyu yi nga xam nag ñooy doon borom cër yi muy sëriñ ak borom xam yi ak jàngalekat yi bi ñu fàqee jëm si ci sëriñ bi kon niti kese kese yi daan topp ci ginnaaw ñooñu moom taxuñ dee si wax loolu moo fàqaale ñëpp ñu ñëw def ay mbooloo ku ñëw ba dem bala ngaa àgg sa sax sa xel nekk ci dëpp daanaka doo ngir liñ gisoon ci ak taxawam gum taxaw ci bi yàlla ak sànni gim daan sànni di duusu duusi xikma yoo xam ne eh, jataay boo fa am lu mu gàtt gàtt rek nga jëlee fa njariñ lu rëy wax nañu ni eh, dafa am ku ñëw taxaw di déglu sëriñ bi muy wax loolu yéem ko lool mu waxee ba noppi mu jox Serigne bay jaxate sàll bi mu waroon fas bi mu waroon ne ko joxal ma ko ba ne jox naa ko sama sàll wii ngir lii muy wax ci yàlla waaye Serigne bi ne ko ne na ñëw ma jox ko sàll wu gën ci moom wii bu ñëwee sëriñ bi tomb ñetti tomb ni li mat a def ak li matula def ak li ëpp def ñetti tomb yi mooy li mat benn bi mooy li mata a def tomb ñaareel bi mooy li matula def tomb ñetteel bi mooy li ëpp a def li mat a def mooy jaamu yàlla ngir moo lay may àjjana di la musal ci safara li matu la def mooy fo ngir du la may dara du la musal ci dara li ëpp a def te ko sax xel xalaat ba mu ko waxee dafa dindiwaale tom ba sànni ko te ko sax xel xalaat nag mooy ak mooy yàlla kon duusi xikma yooyu ba tey la daan duusu fu mu toll ak li nga xam ci moom ci jikko yu rafet ak tab tab goo xam ne suñu borom moo ko ci dimbale ndax la mu ko ci dimbale mooy dafa xëcc ci àdduna jox ko ko dajalee àdduna jox ko ko ak ak teggin yu rëy yu kawe ak jëflante yu rafet loolu tax aw turam daj tasaaroo réew mi kapp nit ñëpp di banamti ko ak xetam mu mujj doon waxtaani guddi yi ci ëtt yi doon eh, waxtaanu ñi war ca kaw raxle doon béréb bo uh, doon gëstukaayu gouvernement yi tàmbali ci gëstu buñ dajaloo ca seeni diwaan mbaa assemblée ba tey seeni waxtaan mooy mbirum sëñ bi di lijjanti ba xam fu mu jëm ak lu ko tax a jóg waaye moom radiallahu anhu mësta dañ ca nam meloon di wéet amul kenn kum wéttali ko ku dul yàlla amul benn àndale bu mu jàpp bu dul ci yàlla yëngutuwut mbaa muy dal ndare ci yàlla ak lu neex yàlla ak ngërëmul yàlla ci biir loolu benn boroom xam-xam du ko mën a bañ kenn ku maandu du ko mën a bañ kenn ku maandu maa nga am xam-xam doo ko mën a critiquer ndax gisuñ ci moom dara lu ñu war a mën a critiquer moo tax ñépp ñaar képp lañu woon wala ñett kii day soobu si ànd ak moom kii ñëw jëbb lu si kii di xaymaam bu dépp lu suba it xaymaam li mu nekk di ko rafetlu noonu la doxe ba daanaka buur yi këri buur yi ñëpp ña ca bokk dañoo mujj ñëw jébbalu si ci moom lu ëpp ci buur yi kajoor ak bawal lu ëpp ci eh, ña ñëpp bokkoon ca nguur ga niti nguur ga kajoor ak bawal dañoo ñëw jébbalu si sëriñ bi loolu tax siiw gi gën a dolliku mbooloo mi gën di yokk yàlla it dogalal ko giir gu ña ca doon tànneef ñooy ñëw di jébbalu si ci sëñ bi giir gu ne rek tànneef yi ñooy jëkk ñëw ci sëñ bi kilifa ya ak doomi kilifa ya loolu moom suñu borom dafa ko jagleel ci njëlbeen nga ak ci mujj gi ay taalibeem dëkk bu ne ak métier mu ne ak giir gu ne kilifa ya lay doon ñaar ña leen topp dootu leen a topp teyit kenn mësta manqué daraja topp ko te du yàlla yëkkati la ci sa biir nawle ba nga xam ko ba doo ko nattable mu mel ni suñu borom dafa sose ay mbiram da koo fondee ay kilifa meneen loolu la sëñ bi jubloo junj ci benn lenn ci xaside yi di waqanteeg sunu borom ni ko nafaxta ni fanfa biyal iyaala yaa man xawal amira wal aqyala jariñ nga ma kon na jariñ sama njaboot yow mi yirif buur bi ak i kàngamam loolu nag boo amee dana tax Eh, ñu di ko fuglu gouvernement bi di ko bàyyi xel di bàyyi xel ñi ko topp ndax siiw na waaye liñ ko xamee woon mooy xam-xam ak diine ak ko sàmmonte te ñu bare bare bare ci nit ñu baax ñi doon nañ séentu ci moom ak wilaaya loolu ma waral Euh, ñi nga xam ni boroomi xam-xam yi àdduna lañ àdduna képp lañ bëgg te xuusuñ ci yoonu yàlla dañuy daal di eh, tàmbulee am luñ gis seen diggante ak moom tàmbuli ko woon gannaaw ndànk par ndànk ngir ni muy doxee niti àdduna yi day feeñal seen awra ñoom ñoom boroom xam-xam yi di àdduna yooyu boroom xam-xam yi diine yooyu nga xam ne àdduna képp lañ doon sàkku ci seen xam-xam ni sëriñ bi doxee ak niti àdduna yi day feeñal seeni awra bañ gum bañ seeni alal sori gum leen di sori ñàkk gum ñàkk mu daranteeg ñoom loolu day feeñal seeni awra naka noonu niti àdduna yi dañ ko daal di bañ ngir léegi amut ak ñoom maslaa seeni alal bëgg ko murit yi ko gëmit ci doxin woowu lañ daan dox noonu lañ leen di woyafale ba tax na kon boroom xam-xam yi diine yi nga xam ne àdduna leen taxoon di sàkku xam-xam moom lañu bëgg sëriñ bi day metti ci ñoom naka noonu nit yi àdduna yi it sëriñ bi day metti ci ñoom ngir amul benn maslaa ak ñoom waaye nag ñi nga xam ni boroom xam-xam yi ëllëg lañ te mooy boroom xam-xam yi sellal te wéral seen diggante ak seen boroom ñoo ñu moom dañ koy bëgg méngoo ko nangu mbiram ñee it lañ koy bañee bokk na ci lañ koy bañee murid yi leen woyefal te woyefal seeni murid yit daanaka bu dee boroom xam-xam yii nga xam dañoo bëgg àdduna bokk na ci lañ koy bañee murid yi ni ñu ko fonkee ak ni ñu ko réyale keneen comme doone noonu ngay woyefa ci seen xol noonu ngay woyefa ci seen bët loolu dina tax ñu bañ leen bañ ko loolu moo waral nag njàmbat yi bari ci fànn gu ne lenn li ñenn lan li mi ngi jóge ci jullit yi yeneen njàmbat yi ci des mi ngi jóge ci buur yi ndax bu dee jullit bi la muy ragal ba tax mu di ko jàmbat ku ci dul ko sellal diggante mag borom la muy ragal ba tax mu di ko jàmbat mooy day ragal mbooloom fàq de mujj sëñ bi tey daana am nag benn lu ci ëpp seen mbooloo dañ daan fàq di dem ci sëñ ba ngir yàlla lañ doon xeeñtu te fee lañ ko yëg buuru àdduna bi li tax mu di ko bañ mooy mbooloom lay bañ ñuy fàq di dem ci sëñ bi ndax ba tey loolu dana am na benn benn yu daan fàq ci ñoom ñu bare bare sax di fàq di ñëw loolu nag lu mënta ñàkk la ndax yonente bi ne woon na jullit euh, ci diggante juróomi mbir lay nekk dana nekk ci diggante jullit bu koy iñaane ak naafiq bu koy bañ ak yéefar buy xeex ak moom ak seytaan su koy réer ak bakkan buy xëccoo ak moom tey it nit koo xam ni dangaa jekki-jekki ni fëll ci sa biir biiri nawle kawe leen fokk rek euh, loolee du ci mën a ñàkk sëriñ bi juróom ñii yonente bi wax ne jullit bu ne yaa ngi ci diggante jullit bu lay iñaane ak naafiq bu lay bañ ak yéefar buy xeex ak yow ak seytaan su lay réeral ak bakkan buy xëccoog yow sëriñ bi sikk amul ci ni moom seytaan yàlla musal na ko ci ragal yàlla wattu na ko ba mënta topp bakkanam kon ñett ñee fi des muy ki koy iñaane ak naafeq bi koy bañ ak yéefar bi xeex moom ngir balaa bi suñ boroom dogal ci ab jullit bu mu tànnal ay cër bu ne mu war ci ajaar mu war a jaar jot ci balaa bi nga xam ni képp ku suñu borom tànn danga nga jaar muy aji iñaan ji ak ayab naafeq bi ak yëfa bi te yonente bi nee na nit ñi gën a tar ab nattu ci nit ñi mooy yonente yi ñu gën a topp ca ñu gën a topp ca te bokk na ci balaa yu tar yi fitna yi soppe bu réer ak pexey noon bu amum xel loolu nit yàlla nattoo na ko ñi soppe lañ bëgg nañ ko lool waaye ak ëmpule ñee doon ay noon ba noppi bari pexe lool gudd ay xel la jo des nag mooy posenu nu jege yi nga xam ne mbokki diina lañuy doon yooyu nit ñi nii rek nga xam ne duñ doon ay borom xam-xam duñ doon ay nit yàlla ba tey ñooñu itam seen posen day royaat di ñëw ci moom jullit yi sax lu bari ci seen i njàmbat duñ ko mën a fésal ngeen mbirum sëñ bi dafa leer ci mbirum diine leer ci xam wàllu xam-xam leer ci nekk bu nekk ci yoonu sunna wu leer ak yoonu nit ñu baax ñu njëkk ñi kon lu lu fi des lafa des mooy mbooloo mi fàq jëm si ci moom bàyyi leen nag di dolli ko jamono bu ne ba noppi nag ñi ko gëmit woyefal ñu dul lu dul sëñ bi woyef ci ñoom ñenn ñi bàyyi seeni mbokk bàyyi ñañ xamoon féete ci liggéey bi ànd ak lenn ci majso bi nga xam ni duñ mën a dékku mukk kuy woyefal mbirum sëriñ bi ñi ngi xeex ci yoon wi yooyu yépp nag buñ ko dajalee bokk na ci li tax njàmbat yi bari di tasaaroo ba jafe-jafe rek du mën a ñàkk am bu it lenn ci majso bi yaa ngi feeñ ñii dinañ yéeg ba ci kaw garab ñu fa daanu suuf doon benn jeexit loolu yëpp nag buñ ko boolee mooy sabat sabab njàmbat du mën a ñàkk ci diir bi ci lañ ràññikoo ci tur ñu di leen wooye ay murit ci diir boob yi ci la ñu ràññikoo ci ñu di leen wooye ay murit ràññiku nañ ngir sóobu gi ñu sóobu ci loxol sëriñ bi sóobu yoonu iraada ci loxol sëriñ bi noonu ñu sooboo tax na di leen wooye almuridoon ndax ñooy mbooloo mi jëkk soobu rek topp ab sëriñ di ko tarbiyawu futti ko bàyyi lépp noonu donte ay xaadira ngi fi woon di ay murit ay tijaan ak di ay murit nii ñu ko sooboo kenn da ko sooboo wutoon noonu moo tax bu dee boor yi ak kàngam yi ñoom dañ daan jànkonte ak murit jànkonte yu metti fitnaal nañ leen nangu nañ seeni alal lu ne def nañ leen mi di gën a dolli ko rek di gën a dolli ko rek di gën a metti waaye lu gën a metti nit ñi gën a jeng jëm ci sëñ bi xanaa loolu mooy leeru dëgg ndax xiraq la ba ba ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yónnee ab bataaxel di ko woo ci diine dafa wax ni kii di woote diine ji ndax am na fi ci dëkk bi ñu jóge ci réewam ñu ni ko waaw ñu dajale mboolem arab yi jóge woon Makka doon commerce sa foofu ci saam boobu Abu Sufyaan ma nga ca boobu jëbloogul dafa wax ni eh, kii di woote ab yonent ana kan moo ko gën a jege ci yéen ci ak mbokk Abu Sufyaan ni ko man boobu moo ko fa gën a jege ci mbokk mu ne ko taxawal nii mu taxaw ci kanamam ña ci mu taxaw loolu ci ginnaawam ngir nee na dafa bëggoon bu fenee mu xam ko ca ñee ci bëti ñee waaye li ma jubloo foofu rek bokk na ci laaj yam ko laaj dañu ko dañuy dolliku wala dañuy wàññiku ña koy topp mu ne ko dañuy dolliku mu ne ko ndax mas gis kenn dugg ca ba mujj mu mere ko weddi dem mu ne ko déedéet mu ne ko loolu leeru nubu walla leeru suñu borom bu duggee ci ab xol du ko jënd dara bay bàyyi naka noonu it mbirum suñu boroom bu tàmbalee day tuuti waaye day dolli ko waaye mbirum sëñ bi lu lu lu tartar yi gën a bari ci seen diggante ak nit ñi ñu gën a jeng jëm ci sëñ bi gën koo bëgg gën a walwali jëm si ci moom noonu la buur yooyu du uh, defee lañ man lépp ba mujj nañ njàmbar yi daan njàmbar ma ñu yóbbu ko ca gouverneur général ca Ndar uh, tuumaa leen dafa tuuma yu baree bare gouverneur bi laaj leen leen ana kuy ana seen sëriñ ñu ne ak fan lañ sosoo ñu ne ko seen sëriñ mooy ay Cheikh Ahmad Bamba boroom xam-xam la jaamukatu yàlla la xamuñ ci moom dara ci muy tooñ kenn xamuñ ci moom dara boroom xam-xam yi xamuñ ci moom dara lu ñaaw mu leen kon dangeen leen di génnee ñu dem ci seen sëriñ baatu joxe googu mu joxe ndigal ni génnee leen leen ñu dem ci seen sëriñ ci dëkk ba seen sëriñ nekk te mujjug bawal te mooy Tuubaa loolu yi nag ci lañ amee occasion daal di fàq dal ci kaw murid yi ci waat gu ne lakk seeni kër jël seeni mbay dañ amoon ci alal ñu nangu ko bundu xataal yu métti ñu bundu xataal yi ko ñu daal di dajaloo ñëw ci sëriñ bi dañ ko jàmbatee mu bind bataaxel moom sëriñ bi gouverneur seneraal wax ko li xew ak ni mu amee waaye gouverneur bi daal di yable moom itam def lu ay gëstoom waaye gisul dara luñ leen war a ragale Eh, gis nañ daal dara sababut mbir mi lu weesu iñaane leen benn buur yee leen iñaane ña ca des di ay jullit ni ñoom it fiir guñ fiir ci seeni tali bi ak ñi leen daan topp moo tax ñu di leen jàmbat waaye defuñ dara dara dara lu leen war jàmbate noonu nag la gouverneur général joxe ndigal ne nañ bàyyi murid yi ñu dëkk fu ñu bëgg a dëkk li fekk Euh, ràññiku wuñ ci ñàkk a sàmmonteeg loi loi générale bi rek loi mbaa ñu ràññiku ci ñàkk topp seen diine diine islam dama leen digal li fekk ràññiku ci loolu nañ leen bàyyi de dëkk bëgg a dëkk bu leen ko defati dara xew-xew boobu mi ngi nekkoon ci diggante cent 1307 noonu rambaajkat yi dal iñaankat yi dal tuuti waaye jamono boobu sëriñ bi mi ngi Tuubaa Euh, la mu leen daan digal ñoom murid yi it ginnaaw bu mu defee la ko lam lam la mu war a euh, def ci diggante ak euh, ñoom ci wàllu zaahir te mooy bind bataaxel ki nga xam ni moo joxe ndigal loolu pour mu lijjanti ko yët daleen di dajal nag di leen digal muñ di leen dëgërloo di leen di yëkkati seeni itte ba mu yéeg ci ittey saxaaba yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ndax leen wax ni leen saxaaba yonente bi de daje daje nañoo lu gën a tar lii ngeen dajal ndax rey nañu ñenn ña ñenn ñi tuur nañu seeni deret ñenn ñi nangu nañ seeni alal ñenn ñi génn nañ leen ci seeni kër te loolu duxul seen diggante ak lañ doon sàkku ba mujj am taggu sunu boroom wu mu leen tagg ne lil fuqaraa il muhajirin alladina uxrijo min diyaarihim wa amwaalihim yabtaxuuna fadlan min allahi wa ridwaana wa yansuruuna allaha wa rasulahu ulaika humu saadiquun ni leen muñ guñ muñ moo tax ñu am taggu yàlla woowu ni leen yéen xanaa xamu leen ni ñooñi ñooy seeni bàyyi ci diine kon tiitaange ji ak ferfer ji lu ko war a waral ci yéen te yéen de moo ne xanaa dee sax war naa doon lu lu tuuti ci yéen te yonente bi mooy seen royteef suñu borom wax laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmal axir muñ leen te képp ku rafetal ku ñaawal seen digganteeg eh, moom it yéen ngeen rafetal rek ku ñaawal digganteem ak yéen ngeen rafetal seen digganteeg moom idfa billati hiya ahsan waaw fa ida alladi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyun xamim wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa du xadin azim leen lu maa doon nañu ko défendre défendre bu rafet rek yéen ku ñaawal jëm ci yéen na ngeen rafet dem ci moom loolu mën naa tax ñi leen bañoon soppi ko doon ay soppe euh, te loolu ak muñ ko mën a may yéen daal na ngeen bàyyi xel li suñ borom wax ni yow mën a da'u kulla unaasin bi imaamihim xanaa su ñu leen dee woo jiital jiital ma ci seen kanam loolu war na leen war na war naa daal seen xel te bu boobaa ka leen di bañ du leen naqari waaye saa bu leen masaan waar dañuy màndi ci ndoxum waaraate moom yi ba dañuy daal di sawaraat ñu jóg di fecc ñuy jóg yooxu ñuy jóg daan waay jël noonu la sëriñ bi nekkeek ñoom foofu ba nim toxoo tuubaa dem jolof euh, toxook sëñ bi ci tuubaa jëm jolof nag jóge jolof te mooy mbàkke baari dem ci tukkib géej gi euh, toxu gi dafa am ay sababi zaahir am ay sababi baatin sëriñ Muhammadul Amin day wax ni Euh, sunu sëriñ di doomi nijaay sunu sëriñ sëñ Mbàkke Buso mu ne sëñ Mbàkke Buso moo ma nettali nee na nettali na ko ne li sabab euh, sëñ bi toxoo Tuubaa sañc Jolof mooy nit ñi biñ baree ci Tuubaa ba ñenn ci taalibe yi denc ay soxna euh, nit ñi ci desit toxoo ci yenn ti dëkk yi ñëw sañc si Tuubaa ñi doon tarbiyewu dal di jaxasoo ak ñeneen ña ca des loolu yi daa bokk ci li yàq programme bi mu bëggoon dafa am programme programme bi mu nos bi mu nose woon dafa am ponk bu ci yàqu ponk bu ci yàqu mooy li mu bëggoon mooy ñiy jàng xam alxuraan ak xam-xam nekk ci ak wàll ñiy liggéey nekk ci ak wàll ñoom ñaar bëggul ñu jaxasoo waaye li gën a disaat ci moom nag mooy ñooñu di jaxasoo waat ak nit ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom jàngkat yi day bëgg ñu beru liggéeykat yi beru ñu jaxasoo ci biir loolu ñoom ñoo ñii di tarbiyawu noonu ñii di jàng ñii di ñii di bayit ñu jaxasoo nit ñi nga xamante ne bokkuñ ci ñoom loolu benn la ci ba ci desaat mooy dafa amoon cofeel lool ci aji moom sëriñ bi ak siyaari ji yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba daana ko wax wax na ko lenn ci Euh, ñi mu daan waxal waxi biir wax na leen lu mbirum aji googu sëñ Modou Lamine nee na am na kenn ci euh, taalibi euh, gànnaar yi Mauritanie Mauritanie ñu bokk ci waa Daymaan ku ñuy wax Mohamad ibn Hamd al Abhami wax ne sëñ bi benn at moom yi rek ca Touba wax na ko ni ko ndax am nga cofeel ci siyaara ji Makka ak Madina nee ma ne ko waaw ana fu ma koy jële nee naa sëriñ bi ni ma demal sa ca sa waa kër nga waaj te bu at sa mujjug at mi nga nga ñëw balaa at mi jax nga ñëw ndax dama bëgg a ànd ak yow nu aji nee na bi ma demee di waaj di waajal sama bopp di waajal sama njaboot jékki-jékki dégg yëngutu yi ak tartar yi nee na ma inna lillahi wa inna ilayhi rajiun muy coow yu bari rek sëñ bu Buso nee nag bi euh, loolu amee fër-fër jooju am ci ñaari mbir yooyu muy jaxasoo gi ak bëggum bëgg a aji ñaar yooyu fees xolam dell moom sëriñ bi sëñ Mbàkke Buso nee daf maa woo daf maa woo waxtaan ceeg man diisoo man ci bëgg a sos béréb boo xam ni dafay mën a ràññatle diggante ñaari kuréel yooyu muy ñiy jàng ñeneen ak ñeneen ñi ci des xàjjale mbooloo mi tarbiyewu ak ñeneen ñi fi ñëw di seet ay dem ñoom ci seen jëm bopp yi mu xàjjale leen diggante ñuy jàng ak ñuy liggéey mu ne ko daal loolu dama ci am xalaat ngir ñi jàng mën a jàng mën a jàng mën a jàngale nee na booba it la tànn sëñ daam Abdurahman ngir njàngaleem alxuraan tànn yit rakkam borom daru ngir njàngaleem xam-xam mu bëgg leen a yóbbaale ñoom ñaar ak mbooloo miñ yor ci béréb bu yees boobu mu sos bañ faa yóbbaale keneen ci njaboot gi nag ñi nga xam ne boroomu njaboot lañ ci taalibe yi des fi daal ne ma yow nag kon mën ngaa des fii ci tuubaa doon magoom njaboot gi mu wax ko suñu bàkk bi su ne ko mën ngaa des Touba yow doon magom njaboot kilifa ak njaboot gi bu fee ñiy siyaare si di indi ay addiye bu ñu ñëw yam fi yow yaay xool daal ba koo ci jàllale si nga ku ci mën a yegg si nga yegg waaye ku ci mënta yegg nga tey ko waaye loolu sa xalaatu bopp lay doon waaye loolu lépp ñu yëgoo ko rek ma ak yow sëriñ Mbàkke nee ma dëppoog moom ci xalaat boobu nee na man ko waaw loolu de xalaat bu am barke la rafet na incha allah nee sëñ bi daal tàmbalee waaj waaye nag euh, ci suuf di waaj waajtaay boo xam ni feeñut ñu ñu néew daal ñoo ko yëg ci ñi nga xam ne dañoo sës ci moom bi mu ci dogoo nag bi mu dogoo ci dem te boobu fekk ne euh, nee na sama way jur muy nijaayam yëggu ko ko sëñ Bousso bi mm, te boobu nee na sama diggante moom daf cee noppi woon rek daanaka daf ma ko bàyyee bu wóor mel ni aajowoowu ma sëriñ bi mu demee ba dogu it xam ne mëneesu ko koo ñàkk yëgal mu dem yëgal ko ko waaye loolu diis ci moom lool diis ci sëñ Bousso bi lool disaay gi mooy dafa xam fiirug buuri jolof ak seenu ñàkk mën a muñ ndax dañoo wóote daal ak waa kajoor gi mu nekkoon naka noonu doomi soxna ya nekk foofa it ba tey euh, duñ jox kenn seen doom duñ joxe seen doom daanaka kon ba tey foofa wóote nañu ko ak waa fii te duñ mën a muñ ku ku ñëwee di jël seeni doom mu doon ragal rek sëñ bi ñu di ko bàyyi ko ci ñaari côté yëpp doomi soxna yi ak caddu yëpp mooy di ko takkatoo rek loolu rek la doon ragal moom sëñ bi soxna tere na ko ko waaye du tere euh, jaxran nag daf ko ko tere ci gaaral rek won ko daal la nekk ci ay yàqu-yàqu nii ngir bëgg rek xelam dëpp won ko sew-sewee aada yi euh, réew moom yi wax dëkk ba muy jolof mu xamal ko it ni ko moom bëgg-bëggam moom mii dëppoo ak seen aada ñoom waaye boobu fekk na sëñ bi dogg lool rek comme ni nga xam ni noonu la nit yi tasawuf yu mag yi baaxoo dogo ñoom uh, wéyal seenu dogu dañ ko boole ci seen cosaani tariixa naka noonu dogu ci dara bu mu jàgg nga ko it ñoom xeetu murtat lañ ko jàppe daanaka dee sax ko gënal noonu bi laxase ci weeru shawaal ci atum baysasin te mooy 1312 dem jolof noonu la ànd ñoom dox ba mbàkki bari ngir béréb yi njëkk a jot jëkk ñuy àgg mbàkki bari ndox amu fa loolu kon mooy sabab sababu zahir bi tax sëriñ bi toxoo tuubaa dem mbàkke baari mu des sababu baatin bi lu mën a doon mën naa am zahir ak baatin sababu baatin bi nag dañuy wax ne ginnaaw juróom-ñaari at ci bi mu sancee tuubaa wala juróom-ñaari at yu manqué tuuti biir weeru koor ci atum bay sa sin 1312 yooyu euh, ni ko sëriñ Abdul Ahad net la dafa doon def li'tikaaf ci Daaru Xuddoos eh, ci jàkka joo ji jàkka ji sëñ Mbàkke Madina Yaasul Atam defaroon da ko moo ko tabax sax ba muy def li antikaaf fale ko yonente bi sallallahu alayhi wa feeñu mu jaayanteeg moom ci eh, di ko liggéey bëgg ko liggéeyal liggéey ba mu niseeroon ca atum assasine mu waxee ni waa adhara xidmata ama jay sasi wa qalbuhu admaraha min asasi liggéey bi mi ngi ko feeñal ci atum Jesus waaye xal xolam moom ma ngi ko dencoon ca atum assassin bi mu jaayanteeg moom fas yéene liggéeyal liggéey boobu yi ba noppi ni ko nag dama bëgg a bokk ci mbooloo mii ànd ak yow boobu yonente bi mu koy feeñu mi nga ànd ak saxaaba yi ahlu badar nee na yonente bi ni ko ñii ma àndal leen day la ci daan boole nit faat na ndax tuur deret ci daan boole nit te tuur deret faat na loola ci mën a boolewaat nag ab nattu lay doon boo xam ni nit dem na ba toll fii nga toll ma feeñoo ko nii ma la feeñoo laaj ko lu mu bëgg lu bëgg lu dul lii nga bëgg te bu demee ba ci biir du ko mën a dékku te bu boobaa dina fa dox yàqule ba faaw te yow da ngay sama waaye bopp joo xam ne bëgg lu ma la loolu ni ko ñetti weer daal moo la tee doon xutbul samaan bés ni ko tey mën nañ laa tëbal ñetti weer yooyu nga doon ko waaye neen na sëriñ bi ni ko loolu di baax na lool waaye nag sama gis jël na loolu teyit ruu gi laa xamul lu mu attan waaye lépp lu sama ruu àttan sama jom àttan na ko nee na foofee la jaayante ak yonte bi kon ci soobu liggéey boobu ngir am cër boobu nee na yonte bi ni ko waaye dëkk bii danga koy génn ndax aar nga ko kaaraange joo xam ni dara lu la naqari mun la fa fekk te euh, lii ngay cër bii ngay sàkku ci ay naqar ak i tiskepp ci lay jaar loolu moo sabab ba ñu euh, ba ñu waree rek ca saase la daal di toxoo fa fa dem mbàkki bari ba mu demee mbàkki bari euh, nit bu gàtt la fa am rek jaxase yi tàmbali ñu tàmbali ko jaxase tubaab bi ba lay xew xew ba foofee lañ ko wooyee mu dem ndar bañ àtte àtte boobee ñu àtte ci fukki fan ak juróom-ñetti yore safar kon xam naa day mel ni bu fekkee dafa wari rek dem kori diggi tabaski tamxarit ñeenti weer la fa am digg wi digg wi ba mu tàmbalee lañ ko woo nga xam ni fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar ci atum jaysasin mooy fukki fan ci weeru août 1995 ci la atte boobu am ci la génn gi jolof am euh, génn gi foofu mu nekkoon mbàkki bari dem ndar sëriñ Bachir mi ngi wax ni sa Amsatu Jaxate nettali na ma ni mi ngi fàttaliku benn bis euh, lépp day mbirum bàtt moo xam ni euh, zahir si dina am waaye fekk ne suñu borom am lu muy dogal ba noppi moo sëriñ Bachir wax na ni sëriñ Amsadu Jaxate dafa ko nettali ne ko benn bis damaa fàttaliku sama way jur ñëw ci sëriñ bi di ko siyaare si booba euh, gone la moom sëriñ Amsadu mi ngi toog ci seen diggante ci seen pegg sëriñ Amsadu ne na maa ngi bokk na ci la ma dégg sëriñ bi wax ko sama way jur dana ko damay waaja ab tukki bu sori ci jamono bii nu toll nee na sama bàyyi ne ko ndax mooy jolof ci may dégg ñun da nga faa bëgg a dem nee na sëñ bi ne ko ci xeetu tukki waaye ab tukki la kon day mel ni bàyyi woon na xel yoonu géej gi googu yi te jàppoon na ko ndax mbirum bàtt la mu dox diggante ak borom naka noonu buux buuxloo gi nit ñi daan buux buuxloo ci kawam di daj dajloo di wej wej di coow kenn ku ne di ko sàkkoo jox cërub àdduna loolu moom dafa mel ni eh, daf ko daan moytu te bëggu koon sëñ Bachir mi ngi nettali ni ñu mbooloo murit mu bari mu bokkul nettali nañ ma ni ma am na benn bis bañ gum bañoon boo booloo gi benn bis mu ñëw ci jàkka ji nit ñi jëkkante lal sajaada bi ba xaw caa xeex sëñ bi ba mu leen dalloo da leen ne sama sajaada bii de danaa ko teg ci béréb boo xam ni kenn du fa jege kenn du ma ci dimbale kenn du ma dimbale ci lal gi incha allah ñenn ñi naan na ah, xaj na dafa bëgg a aji ñenn ñi naan xaj na daa bëgg a dem tukki tukki wax day wéet moom képp ci àll bi xalaat bi lu ñu am ko ci waaye boobu dafa mel ni tukki bii rek la jubloon a junj mu ne xaj na tukki bii rek la jubloon a junj ginnaaw bu mottalee muxaddamatul xidma ndax sañ Bachir nee na ma muxaddamatul xidma bii moo sabab tukki bi génn gi dem ci géej gi lee ko sabab bokk na ci li mu wax ci ay eh, xasid li mu wax ci xasida yi ci sababu sababu biir yi moom sëriñ bi sababu xaybati ya an allaha araada an anaala minhu jaaha wa an akuna shaafian li qawmi wa an akuna xaadiman fi dawmi wax na li sabab tukki bi mooy yàlla dafa bëgg ma am ci moom daraja dafa bëgg it ma doon kuy ràmm sama nit dafa bëgg it ma liggéey ca dawme kon loolu ba tey tukkib géej gi ba tey tukkib géej gi kon euh, noonu ni la amee ay sababi zaahir ak sababi baatin waaye day def suñu borom lum namu lu ne fokk mu wutal ko ay sabab yu muy jaar sëriñ bi bi mu wàccee Mbàkke Baari la tàmbali ñuy liggéey kër gi sëñ Modou Lamine ne wax na faak ñenn ca euh, kàngam ya nekkoon foofa njëlbeen gi mel na ni euh, ñagasug wax am na ci ba àgg ci ñoom ñooñu lenn ci ñoom am na ci ñoom ku wax ni ñun kat doomi soxna yi miinuñ ci sunuy doomi soxna miinuñ ci ñoom lu mel nii ñu ñëw di buur buur la ci suñu kaw daal ñii ay buur képp lañu yu ñëw fii ngir xëccoo seeg ñun suñ suuf sii daanañ leen dégg nag daanañ dégg seen seeni seen i mbir daal ni wallahi mënuñoo fii duñ fi gis aw aw yiw ci ñun te it duñ dëkkeek ñun dëkkeek ñun ci suuf si nii ci nii ñu mel ni duñ ci dëkkeek ñun ci suuf si façon waxin mel noonu am na ci eh, kàngam yi koo xam ni loolu la wax ci bi mu waxantee ak sëñ bi ba ay ñagas ñagas am seen diggante ci bi sëñ bi doog a sañ ci mbakki bari waaye loolu mooy yoon yàlla bi muy ànd ak ay wàlli yoom rek jamono bu ne day ànd ak ñoom ci melow jalaal ak jamaal ci melow jalaal ci la leen di seeni noon di feeñoo yoo xam ni dañ leen di weddi waaye loolu fiir gu suñ borom fiir ci ak nitam la ngir bañ mu jàng jëm ci kenn ku dul yàlla sëñ bi ci doyloo gum doyloo yàlla ak wan gannaaw gum wan gannaaw mbindeef wax na yàlla ni ko man huka afdalu min al ihsaani min malakin aw jinnin aw insaani ma ñaan la nga gàntal ma moo ma gënal rafetal gu ma malaayika defal mbaa jinne defal ma ko mbaa nit defal ma ko li ni man aykahu wal xataaya li maxwihi al uyuba wal xataaya wa kaw ni ixsaanil bariyati al xijaab ngir yow su ma la ñaan la nga gàntal ma loolu mooy jëmme ak may ngir dafay far ay ayib di far ay ñaawteef kaw ni ixsaanil bariyati al xijaab te rafetalu mbindee fi kat kiiraay lay doon gu dox diggante nit kañ rafetal ak boroomam te loolu dara jëru moo tax nee na ma ñaan yàlla mu gàntal ma moo ma gënal rafetal gu mbindee fi rafetal jëm ci man moo xam nit la mbaa jinne mbaa malaayika kon yàlla dafa baaxoo ànd ak ay waliyoom ci sifatul jalaal ak jamaal jalaal ji ci lay koy ay noonam di feeñoo ak mbañal dox seen diggante ba nga xam ni du xeemem ci ñoom dara du xeemem dara ci ci kenn ku dul yàlla waaye ci sifatul jalaal bi merew jalaal bi jamaal bi ci la ko suñu borom yi feeñoo ba am ay soppe yu ko sopp womatu jëm ci moom yàlla tàggatal leen ba mu mën a liggéey yàlla ci ñoom ñaari melo yooyu noonu la nit yàlla yépp di doxe yonente yi ci lañ daan dox awliyaaw yi ci lañuy dox kon ni ñooñu feeñe di wax ak moom waxe ñu ñagas ñi iñaane ko ñii jublu ko jaxase noonu la beneen qualité feeñe boo xam ne ay kilifa lañ yoo xam ne dañuy ñëw di sàkku si ak cofeelu sëñ bi sàkku féete ak moom euh, délégation yi di ñëw lenn nag ci kàngam yi di ñëw di ko siyaar si waaye nag rambaaj yi kon dañuy continuer ñoom itam seen programme di continuer seen liggéey rek noonu lañ continuer seen liggéey eh, ñiñ mën a jokkool ci waa gouvernement bi ñuy jokkook ñoom ndax caddo yi fi jëkk a nekk yi fi nekkoon daanaka ci doole lañ daan dund ak di dund ci nit ñi bu gouvernement tubaab bi ñëwee nag ba noonee ñu daan jékki-jékkee ni kirtim ab dëkk nangu lañu yor mënatuñ ko duñ man lu dul occasion ne ci jaxase yooyu jaxase diggante nit ñi ak gouvernement bi ngir ñu mën a am occasion bu ñu lekkee alal nit ñi ndax foofu ci loolu lañ daan sukkandiku booy fee nag jaxase rek kii da leen a bañ kii nanguwut a joxe li mu war a joxe diw mii fitna ju rëy mën naa bàyyi ko ci moom kii mii nit ñi dañ ko fonk di ko kopp koppal léegi mën na fi andi lu rëy rëy mën na fi andi ab guerre te boobu sëriñ bi daa bari ay bari mbooloo bari ay talib ñu ngi koy ñu di ko màggal te teg ko fu fu fu gis ku fa teg kilifaam ñu lépp ñuy ko leer laal tubaab yi ko nag seen kilifa gi bu leen digaloon ñu xuus gi gi sax dañ ko xuus xuus ñaar bee mbiram mën naa lënt ci ñoom ci mbirum ña ko jiitu woon ci ay sëriñ ndax comme Maba Jaxu ab xeex la jihaad la wate woon Maba it dafa mel ni ku ñëwoon rek ngir yeggale xare yi Alaaji Omar muy jàllal ak xare goo xam ni sax na fi lu mat téeméer at jihaatu Cheikh Omar mi ngi jokkaloo ci jihaatu Souleymane Baal jihaatu Souleymane Baal mi ngi jokk ci jihaati ku ñuy wax Nasiru Diin ci Sahara bi Nasiru Diin dafa jubloo na roy ci kilifay jullit yi ci njëlbeenu islaam noonu la rambaaj demee jokkoo commandant bu Louga ak Jolof doon Leclerc mu doon ko manqué ku tooy koo xam ni mbir yi du ko lijjantil boppam day jàpp ci lañ koy wax rek te boobu turu sëñ bi àgg na foo xam ni ak bari taalibe yi foo xam ni maanaam ku xamut mbiram rek foog nga ragal ko ñu daan dégg it ni mu woyee fale mbiri àdduna yépp ku xamul dëgg dëgg mbiram foog nga ragal ko waaye ku ko xam ne danga xam nag ni mu fale Euh, mbirum àdduna ak ni mu ab xeex daan faral di naqarlu lool sax wàllu yi nga xam ni ak boroom xam-xam yi daan jihaad ba seen mbir mujj naax saay loolu dana daana ko naqari lool koo xam mbiram daanaka da nga xam ni loolu du mbiram waaye ña ko xamutit fokk ñu di ko tiit rek waaye ku ko xam de da nga xam ni bu buñ ko yóbbuwutoon ca géej géej bootul moom mooy demal boppam ba ca àll boo xam ne kenn du fa mën a agsi mu nekk fa defa jàmm yàlla mbaa mu dem ca Kaaba ga dëkkaaleeg moom ngir wet ak jaamu yàlla ndax daanaka géem moo ko gën ak fes te loolu labiré gii mu labiré Alburi buuru Jolof ak lam jëkkoon a labiré Lat Joor moo ko fa jiitu woon ab tegtal la ci bu leer ndax lam jëkkoon wax Lat Joor leer na da di ko woon da ngay bàyyi gàngoor gi lépp te jaamu yàlla boobu yàlla dana la may lu gën li nga doon sàkku Alburi bi mu ñëwee lu mel ni lam tontu woon Lat la ko tontu ba noppi joxaat ko meneen misaal ndax dañu ko ñii di xëccoo ak gouvernement France bii de ni ma leen mën a misaal ñi ngi mel ni nit koo xam dafa jël ay kuuy yeew leen di leen yafal ngir bés bu mu leen di xaare di leen di sonn lool ci dund ba di di di di di di ko raay ngir bëgg xayma am xayma lool ci mu duuf waaye xar yi dof guñ dof mujj ñuy dañanteeg moom ci di ko tere ñàdd bi defee ne ñàdd bi mu leen ñàdd lay lay sàkku si kooku muñ gamuy muñ ci dañ googu ñu koy dañ lu dara lu weesu rek di ko waaj di waaj xam ni am na bi sàngam bu mu ko soxla te buñ ci àggee mu am li bëgg rek daanaka noonu la joxe woon ci tubaab yi tekkeeral gi ñu tekkeeraloon man gi mënoon ñëw ñi kirtim lépp nangu ko ba noppi di tey lépp dañoo bëggoon a nekk ba jàngat réew mi ba xam ko ba xam ni ñuy doxee képp waaye nangu ko lu leen yomboon la ci njëlbeen ga ngir ngànnaay yaag nañ ko waajale dara lépp nag ci déggu sëñ bi ak ñawuk xelam dafa xam seen capacité ak seen qualité ba moo ko gën a xam buur yooyu nga xam ne buur yi àddina la yoon yu daan xëccoo kepp sëñ bi ni leen xëccoo gi ngeen di xëccoo ak yéen yéen itam noonu kepp la demee nii ma leen wax rek la demee ñiy tudd ay jihaat ak yooyu yépp de euh, daanaka musiba lay doon moo xam ne bu ñëwee ca kaw kookee ko doon wax rek ci lay këpp noonu la biiram meloon waaye nag yàlla mooy def lu mu bëgg dina ko dina ko wutal ay sabab rek bi lekk lark moomu doon xaakimu Louga te mooy euh, commandant Louga bi mu demee ba reconnaître li ko rambaajkat yi wax nag la yóbbu xibaar bi ci gouverneur général ca Ndar waaye gouverneur boobu ku tey la deewul jekki-jekki rek ni sabax ci mbir waaye dafa dem ba am luy nuru preuve përëf bi euh, moom la sëriñ fa lu nettali ni Sàmba Lawbe dafay ñëw Jolof ma abduloo ku ñuy wax ma abduloo dajafa moom Sàmba bi waxtaan ak moom ba ni ko sax Ndar maa nga fa doon defarlu ci kuy tudd diw sàngam sama kaase léegi ma abduloo jàpp tur woowee ba mu demee Ndar dem ca kooku laaj ko xamal ko ni ko sàmbala bi sama xarit la waxaataan ak moom ba ni ko du dafi doon defal ab kaas bi ko am ni ko anam ma xool ndax baax na bi mu gisee kaase bi euh, jël aw kayit mel ni luy ese ci la ko tamponné ci aw kayit fexe ba lem kayit woowee yóbbu ba mu lemee kayit ba yóbbu nag ca la bind ab bataaxal boo xam ni dafa bind gouverneur bi général bi ni ko man sàmbalaaw bi maag Ahmadou Bamba noo ngi lay xamal ni nangam nangam nangam baal wan ko ne ko daal ba yóbbu wàcc ndax ñun jihaat moom tax a jóg loolu nag day mel ni mooy preuve bi nga xam nag ci la gouverneur général bi sukkandiku nag ba jàpp ni ko nag lu wér dañ li koy tuumaal dëgg léegi bëgg naa jihaat ngir moom yor naa aw kayit wuñ tamponné te bind nañ ci turam loolu tax mu bind bataaxel commandant Louga Eh, yónni ko ci sëriñ bi ngir mu woo ko mu woo sëñ bi mu ñëw pour waxal boppam boobu sëñ bi dafa am ngànt te dawul def dara ci lu dul ndigal mu yabal boroom daaru moo doon doonoon rakkam di loxo di jooram mu wujjil ko waaye ci li sunu borom di dogal dafa mel ni rambaajkat ba doon jaxase daa jaxase waale ba sikkloo gouvernement bi ni leen même bu ngeen ko woo du ñëw te bu ñëwoon it du siggi xool leen ngir xam na loolu ci sëñ bi tax sëñ bi loolu da ko daan def waaye ak woye faram àdduna la du siggi xool kenn bi mu dikkul nag maam Thierno dikkal leen buur bi daal di gën a mën a wéral nag ni kon liñ ma doon liñ ma doon wax nag kon dëgg la daal di mer daal di jox ndigal commandant bu Louga eh, ni ko nag na waajal ab arme te dem jëli ko mu daal di waajal ab arme boo xam ni sikki sàkki wutoon ci ne ab xare mënta ñàkk am ndax jàpp ndax li am na lu ñu jàpp ci moom loo xam ne sore naa fa mu nekk lool waaye sëriñ bi yëgu ci dara bañ leer lekk ko noonu nee na mu wax ni xamoon ni mbir mi toll sama ñàkk ñëw toll na leen foofu daal di yebalaat borom daru yoonu ñaareel mu ngir mu leeral ko commandant Louga boobu ne ko ngànt rek ko téye woon waaye bu fekkee ñi ngi koy ittewoo ba léegi moom mën naa sonal seen bopp bu ñu yàq alal ak di sonal seen bopp ci waajal ay ngànnaay ndax fii aw ay amu fi ab xeex amu fi boroom daaru jëm dem fekk leen jeewal sëñ Bachir mi ngi wax ni sëñ boroom daaru ba mu demee ba jàkkaarloog commandant bi daal di wax làpputoo bi te mooy entrepreneur euh, bi li ko tax a jóg nee na bi mu waxee ba bàyyi dafa gis commandant bi tontu ko tontu loo xam ne dëppoo wut ak lii mu doon wax moom borom daru nee na ma xam ni cap euh, kii bi euh, entrepreneur bi dafa soppil samay wax nee ma xam lii moo sabab lii lépp li xew lépp lépp sabab nee na ma woolu ma dem ca ku ñuy wax Baraan Jaw sàkku ci moom mu euh, entrepreneur ma sama diggante ak moom nee na bi mu ñëwee mu wax xaakim bi muy euh, commandant bi ne ko dafa tuumaal kii doon interprète mu bëgg wax li mu bëgg a wax pour ma leerale ko ko nee na commandant bi ne ko bisimilah ne ko ma ko leerale ba mu ko ko leeralee ba mu dégg ko la la nekkoon ci kanam gi ci ak soppi ko dafa daal dañ ma gis mu daal di kanam gi soppi ko nee na mu ne ma li nga def baax na ndax man waa ji waxewu ma ko nii ne ko ginnaaw noonu la demee kon du ñëw waaye fii laay sax léegi nga dellu ci sa mbokk léegi jox ko bataaxal bi pour mu ñëw fii ëllëg daani ko léeg-léeg mën ngaa ànd ak entrepreneur bi li pour mu won la yoon waaye fekk kooku nee na ci rambaajkat yu mag yi la bokk borom daaru nee na euh, rambaajkat bu mag boobu bi mu xamee ni xam naa mbiram dafa tàmbul di sàkk pexe léegi ba bëgg duma àgg ci sëñ bi te waxtu yi ñu jox faatut ngir bëgg daal waxtu yi wees waxtu yi mu war a wuy si wees ngir meneen lënt am ci lënt moom doon lëntal mu yeexantalu di tayal tayallu eh, ni man léegi tàngoor yu mënu ma ci dem nee na entrepreneur bi ma tàngoor yu mënu ma ci dem da ngay xaar ba kër gi sedd nee na bi kër gi seddee ñu génn tuuti mun ma léegi du ma dem te reeru ma te boobu reer reer nee na kenn taalagu nee na ginnaaw bi mu ne ma damaa gëmmentu léegi daal demal bu fekkee da ngaa yàkkamti ànd rek kii mu ànd ak yow yow gannaaw bu mu ko bu mu ko wanee meneen yo weneen yoon nag bu bokkut ak yoon wu ñu war a jaar borom daaru nee na mu boole ma ak benn waaye ba noppi dénk ko ca suuf pour mu réeral ma ci lëndam gi waaye sëñ borom daaru ak ku jàpp ndeem ak ku dalam lépp nag dafa am ñaw goo xam ne kenn mënu koo war borom daaru nee na ma xam nag mbirum waa ji ma daal di koy bàyyi daal di sukkandiku ci biddiw yi daal di euh, jublu rek seet biddiw boo xamante ne nett dafa dafa tiim euh, mbàkki bari googu sëñ bi nekk ma jawal ko ba booru njël laa fa àgg ne ma fekk sëñ bi mu nekk ci jullikaay ba bagage yi takk na ko ba mu wër ko taalibe it ñu ngi dajaloo war a yanu bagage bi léegi taxaw ñu ngi taxaw ñoom tam nee bi ma mu jëkkanteeg man laaj ma ni ma noo def nee na ma wax ko li xew nee na bi ma daataan àggal mu mu dog ma euh, ni ma mbir mi lënt na euh, te tilim na tilim joo xam ne aaje na saabu bu mag ak ndox mu bari ak fóotkat boo am dole waaye indi indil ma fas yu rek nee na ma indi ko fas yu mu daal di kon dénk naa leen mi nga xam ne lu ko dénk du sànko kon léegi euh, dénk naa la xam-xam ak xamle ak mbay mi njaboot gi it ñu ngi noonu ci sa loxo kon mën ngaa nekk fii euh, li fekk mu ngi mën a nekk boo demee ba àggale li ngay def mën ngaa dellu bawal boo demee it mën ngaa seet bu la neexee nga sañc Touba wala fenn ci sañc yi ma sañcoon rek fu la ci neex nga tànn ko sañc fa daal di war jëm ci ñoom ànd ak jox euh, lépp sunu borom tabaraka wa taala li nga xam ni lépp ci loxoom la nekk jafandu ci alquran ak liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, foofee nag mu mel ni àdduna fa la ko tàggoo rekki mboolem rafet-rafet euh, yam ko daan jox ginnaaw bu mbooloo mépp fàqee jëm si ci moom euh, mu mel ni li suñu borom di wax ni baabun la baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibali al azab kaw gi nii day mel ni lu metti loolu mu mel ni àdduna daf ko wut si ginnaaw bi mu wéet ndax fukki nit képp la àndal dem waaye nag eh, lu naqari murid yi ci bis boobu rek neex na ahlu badar ñoom ndax eh, ñoom bis bi mu bi mu tàggook ñoom rek la daal di jaxasoo ak waa ahlu badar ñu ànd ak moom mooy ruuy malaayika yi nga xamante ne ñoo doon xaa ñoo doon jàppale yonent bi ca badar loolu ci lay waxee ànd boobu mu ànd ak ahlu badar ci liggéey boobu ci lay wax ne asiru mahal abrari حين أسير وظن العدا أني هناك أسير muy maa ngi dox ànd ak way baax yi ca dem dox waaye noon yi ñoom jàpp nañ ni maa ngi ànd ñoom di apprécié ñu masir yi mahal axyaari lillahi bin nabi wa maa li li gayrillahi awdu masiru sama dox ànd ak tànneef jëm ci yàlla ci daraja yonente bi wala boog ci kattan ànd ak yonente bi sallallahu waaye musuma dox mukk mukk mukk jëm ci kenn nëkkurul yàlla